ni leen ko waxee woon nag xam ngeen ne tey ñu ngi ubbee woon waxtaan wi dëkk bu tedd bi di Touba euh, ànd nañu ak sëñ Mamour léegi euh, ak euh, sëriñ Ahmadou njaay ci fonkeel gi ci sëriñ tubaa amoon waaye sëñ Mamour ñu gis ne dëkk bi dëkk la boo xamante ni ni ko sëriñ Touba fonkee woon feeñ na lool ci lim ko daan tudd lu bari ci ay mbindam ba laata ñoo ñëw sax xëy na ci mujjug waxtaan wi ci xasida Matlabul Fawzayni gi nga xam ne moom la ko jagleel waaye fu ne ci dinañu gis muy tudd dëkk bi di Touba di tudd may yi ko suñu borom defal di tudd itam xéewal yi ko ci defal di tudd itam niñ fi war a nekkee te loolu yaakaar naa tey euh, xam ko dana yombal bu baax ñi nga xamante ni jëm si nañu ci ci bis bi jublu ci. ok jërëjëf sëñ Lamine mm. ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité d'organisation bi di rafetlu bu baax seen liggéey ci ni ñu ko. nose mm-hmm. di ñaan suñu borom mottali yéene ji rek ba mm-hmm. niñ ko bëggee mu amee noonu te sëriñ bi am ci lim ci bëgg mm-hmm. moom ku ko xamee woon nii sax dañ leen di bàyyi rek ñoom ñu feetewoo jotaay bi <laughs> ñun ñu toog ci kër ga teewlu ndax li ñuy wax am na solo lool moo gën li ñuy wax foofu rek yàlla ko xamee woon noonu moom ak suñu Ahmadou dañ leen di rek ñoom ñu ñu ci noonu noonu nga ko waxee Touba sëriñ bi fonk gi mu ko fonk day feeñ ci léppam bu ñu delloo ci mbindamit daanaka li dalee ci bi mu ko sancee ba ni mu wujjee borom moom moom sëriñ bi fu ne dañ fay dégg gis ma koy tudd di ko tudd nag ci ci anam yu wuute mm-hmm. dina ko tuddee Touba mm-hmm. dina ko tuddee ya mm-hmm. dina ko tuddee albina dina ko tuddee binaaya binaa iya maskani almaskan daari watani addaar donte buñ ko settantale bu ci nekkit am na ci anam gum koy tuddee léeg-léeg maanaam am na foo xam ne bu fay waxee Touba tudd am na foo xam ne watani lay tudd am na foo xam ne daari lay tudd gis ngeen xasida ak wala tazal mukrimana fi Touba nga xamne ci dëkk bi la ci ñaan ci lim ci bëgg ci ay ci ay xéewal ak mucc ak garange wala tazal mukrimana fi Touba wa ghayriha kasir lana al hububa ba jeex mësta dañ mom sëriñ bi it diiru lim nekk ci loxoy yi bi yëpp it fu mu tollu di ñaan suñ borom mu dello ci ko Touba ci jàmm ngir dafa gëmon ne fep fu mëna nekk rek gan la fa way fi mu dëkk moy Touba ba ci kër yi mu fi amoon sax da leen kër gu ci nekk da koy beralu ñaan léeg-léeg am na foo xam ne sax dafay ñaanal ñi nga xam ne ñoo doon tuxal bagage yi di ko jëlee Daaru Salaam di ko indi Tuuba xaamilil amtia da leen di ñaanal ak bannaayina ak allazina yashagiluna bi islaahiha ñiy defar kër yeeg ñi ña ña koy ña koy yeesalaat ak ñi gàddoo bagage yi di ko indi am na fu muy waxee sax naan ko wajaal Tuuba tayiba wa daaral minnati wa daaral minani minna wa daaral quddusi taqdisa wa daaral salaami salaama <laughs> xam ne euh, gox bu ci nekk rek noonu sëñ Ahmadou doon wax sànq ci ne bu tur bu ci nekk day wuy si la ci sëñ bi bëgg la ci sëñ bi daan def ku ci nekk da koo beralug ñaan euh, daaru min na na doon xéewal mm-hmm. daarul xudduus na doon foo xam ne dañ fay selle mm-hmm. daaru salaam nañ nañ fa mucc amee fa jàmm Tuubaa nag na doon lu sell loo xam ne mm-hmm. aljana lay jëmee borom euh, bu ñu toppaatee mbindum sëriñ bi it rawatina bi mu nekkee ci biir loxoy noonu dañuy gis ne Tuubaa tasaaro na lool ci biir mbind yi gis ngeen xasida ak euh, raditu anil mawla nga xam ne sëñ baa ngi ko bind ci maayomba ci bi mu sancee bi mu sampee bantam yooyu jàppee ko jàkka mm-hmm. te kenn ci gaañu jaar fa dindi bant yi sànni ko tasaare ko xam ngeen ni mu demee tey ku ñuy wax yéen lycée ñëw di xuloog ki defoon loolu ci ne ko waroo koo sempi war naa koo sempi sëñ bi bind xasida googu tàmbale ci raditu anil mawla gis ngeen ci biir xasida gi li muy wax ilaahi ilaa tuubaaya xut nii wa ilaahi ilaahi ilaa tuubaaya xut nii wa salliman wajud bimtinaanin samma wal tuumini turba nawaytuhuna rujaa li tuuba bi iznihi wa aw jismi wa aw daatuhu xalba nga xam ne ni muy waxee ci biir xasida gi sax da nga xam sëñ bi day jàmbaar te ak muñkat waaye boo ko jàngee xam ne wax lii amna na lu ko metti lol lol lol te xolam xolam sori na waaw ci waxin wu sori ci bir xol waaw suñu borom delloo ma ci sama dëkk ba ci jàmm ci jàmm ak salam te bo te bu ma fa deme nak ma fa defal jàmm ak sama sama ñooñ ñep di lu daw yoram lo xamne ne neexuta firi sax ci wolof nak dañ dañ ci yar jàll rek ndax xeyna jotaay bi ñu nekk du jotaay yoy xasida ak ala innani usni nga xamne momi moom sëñ bi fofu lako binde neena nee na benn waaye moo ko ab loj ko lañ dig ko keneen tamit jox ko kenn ci ñom ñaar kooka nag ñëw di xuloog tubaab bi di xuloog waa ji ci yaa ma ko diggoon ba nga xamee ne waroo koo joxe waroo ko def ñu ciy xuloo <laughs> sëñ bi nee na mu toog dégg lañu ñu ciy xuloo euh, ci olof la ñuy wax nee na <laughs> olof yu taq lañuy ñuy wax <laughs> nee na waxuma ni ma gëjee wax wolof waaye gëj dégg kuy wax wax wolof dama ko def ba bi ma leen déggee ñuy wax sama xol yëngu na nag ba ba ma fàttaliku réew ma gaaña ba nammu ba namm réew ma mu jël xalimaam ci saa saasi nag di bind ak xasit alay na news nii di ci sant suñu borom it ci lim ko defal ba mom yaakaaram wékku ko ci kenn ko dul sun borom ndax li waji di xuloo ak waa ci loj ko lañ mom digon nako sëñ bi neen bima mako waxe waxee mako sama yaram motax yegguko waye gis nga ci njëlbeen gi rek limi wax sëñ suñu borom ne ko wa bashiril muslimina wal muslimati bi ru'yati bi liqa'i wa ru'yati wa sami ruju'i ila dar salaami wa tuba ma ngi lay ñaan nga bégal julit ñi nak ci ñu ñu gis ma ak man te dégg sama ñibbi nak ci tuba ak dar salam ajilan bila mashaqqatin wala tasabbubin minni ne ci lu gaaw nag naa dellu ci réew ma ci loo xam ne duma ko ko sabablu sax nag te du am benn jafe-jafe nga xam ne loolu lépp day fésal ne lu mu mës a sori sori ci biir nattu bi ak ci biir liggéey bi it xel mi moom mës a jug ci mës a jug ci Touba ilaahi ala xayril baraya muhammadin adim أزكى صلاة وسلمي مع الآل والأصحاب طرا وردني سريعا إلى Touba waxutni yoo àllimi nga xam ne fu mu toll rek da koy wax ne ko maa ngi lay ñaan nga delloo ma Touba nag naa ñibbi naa ñibbi ci lu ci ci dum gën a gaawee nag gis nga xasit ak wala xad karam naa ci mujj gi laataa mujj gi sax rabbi stajib wal tukammil maa nawaytu la daa tuubal lati bi ka tub naa fii ka bun yaana suñ borom maa ngi lay ñaan kat li may ñaan yëpp na nga ma ko nangul waaye nag la ma yéene ca taxawal ko ci sama dëkk bi du Touba nga xam ne yow rek yaa tax ma sanc ko maa ngi lay ñaan nga may ma ba ma mottali ko gis nga ci mujj xasida gi yasir rujuu'i li Touba wax waqini azal wara wal tutib li sama iskana laka sama wal aradi ba xasida gi jeex ne ko kat maa ngi lay ñaan nga yombal sama ñibbi nag ma ñibbi ci réew ma dellu ci sama dëkk ba di Touba te su ma fa defee nga defal ma fa jàmm defal ma fa defal ma fa xéewal قصدك لرب غفور وعجل خروجي من عيوبي جميعها وخدني إلى توبة وعن حسري في الجدبة maa ngi lay ñaan nga génn ma ci mboolem loo xam ne sikk la rek maanaam te sëñ bi loolu muy woowee sikk moom loola ku ca jot jël loola moom ku ca jot jël daw ba rek waaye ci diggante ak boroomam lay wax ne ko rek naa gën di yëkkati ko fu ma toll te naa dellu ci sama dëkk ba nag ci sama réew ma di Touba te na nga ko fegal lépp loo xam ne bekkoor la baa naka su dul noonu mës sa dañ daal fu mu toll moom sëriñ bi di ñaan boromam mu delloo si ko ci Touba indi ko fii ba bi mu demee ci tukki bi ba mu jeexit bis bi ñuy waajal muy màggalu Touba mu wax ne rabixtu fii tijaarati fii xurbati wa ashkurul akrama inda turbati sama tukki bi kat jëlee naa ci tono naa ci jëlee naa ci bénéfice bu bari kon nag tey maa ngi sant sama borom bi ma ñibbisee ci réew mi daal di waxit ne cant gi nag maa ngi koy sant fii waaye bis a ngi ñëw di junj màggal gi ne bisa ngi ñëw yashkuru zal jalaali wal ikraami inchaa kulliya bilan siraami ne bisa ngi ñëw nag mbooleem lu taq ci man mhm. dana àndandoo di ma sant la suñu borom ci xéewal yu bari yi ma yi mu ma defal daal di tudd nag daaru salaam ak Touba mhm. ne na waytu shukrahu la daa daari salaam wa inda Touba ya bi jismin waxi waxilaam mhm. ne bisa ngi ñëw nag cant gi may wax dana jollee ci sama dëkk yooyu may wax moom muy daaru salaam ak touba alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaru silmina muy touba daaru salaam daarul mina la ko wër cant gi may cant ci li ma jëlee ci géej gi bisa ngi ñëw nag cant gi dana dem bay tàmbalee foofu yooyu moo taxoon nag bi suñ sëñ Mourou Moussa ñëwee indi raay bi tàmbali jumaa ji sëñ Mourou Moussa sëñ Fallou ñëw di wéyal daal di woote màggal gi Touba ngir xam nañ ne naka jekk bëgguk sëriñ bi la woon kon yooyu yu ma waxut mhm. lii jut lii jut bi bi aw bati ilaa daari salaam mhm. dunya wa axira wali Touba bi salaam fu mu mhm. toll rek day ne ko nag ma ñaan nag ma may ma ma dellu Touba bu ngeen gisee sax sëñ Mbàkke Buso bi muy wax ak euh, gouverneur général boobu di Brevier nga xam ne gan la fi woon mu di ko wax ne yoon wi demee di ko wax nag ba ne ko sëñ bu mag bi ne ñun ñaandoon ak moom ñett lañu xam ci yoo xam ne bëggoon na ko te def ko tuddal ko ne ko jumaa ji daara ji ak dem màkka mhm. ne ko dem màkka nag moom ñëpp xam nañ ne mënu ko woon def mhm. ndax tubaa gii ci mhm. fii ci booru njaaram képp bëggoon na faa dem ñu te ko mu te ko tubaa bi mësuñ ko nangoo kuñ mënta may nga dem tubaa duñ la may nga dem màkka àggoon nañ ci bind ab lettre boo xam ne mbooleem rakki siñ bi dañ cee signé joxe engagement joxe seen bopp garanti ne sëñ bi day dem tubaa weer la fay def bu ñëwaatee <laughs> suñ borom daanu moo te signé sëñ Massamba signé sëñ Balla Coro signé mhm. euh, maam Cheikh Anta signé waaye taxut ñu nangu ko ba ci yoon woowu sëriñ bi demoon Dakar ci 1921 ci Merlin mhm. bokkoon na ci yiñ leen digoon mhm. ci ne danañ ko lijjanti waaye saa bu ñu demee ba muy bëgg a sotti rek yàqkat yi jaar fañ mas di jaar donte mooy li sun li bëggoon waaye seen loxo mosu cee jóg euh, wax nañ ne sax sëñ bi bi mu ñëwee ba ci jamono yi bi mu ñëwee ci Mbàkke ci xuru mbàkke doon ko léemu si mhm. am na ku muy tooñ ku muy xaw a kafal ci sëñ Masamba wala sëñ Balla Coor xamatuma mhm. ku mu ci doon mhm. ne ko damaa waroon ne coow rek da jàll ba Touba <laughs> ndax ñoom ñoo joxewoon garantie ne day dem mbàkke day dem xuru mbàkke te ñëw ngir wax rek ne sëñ bi mësta mësta dañ ci fu mu toll rek di bëgg a si ci Touba moo tax mm-hmm. bi mu fi jógee rek mm-hmm. bi ñu waxtaanee mag ñi borom daaru moo tax ñoom Sëñ Mbàkke so mm-hmm. ci lañ daal di tàmbali jumaa njaareem ji ñu dafa julli ajuma ngir Sëñ Mbàkke sëñ bi moom naka jekk dafa jàppoon ne uh, ku fi nekk la nii rek waaye Touba la dëkk te buñ ko xëyoon bàyyi bu ngoonee mu ñibbi buñ ko gontoon bàyyi bu xëyee mu ñibbi waat Touba gi mu jóge woon loolu nag liñ ci war a déggee rek mooy Touba ku fi ñëw na xam ne woote bi yàlla lay wuy si sanc si wuñu fi ngir desu fi fay ndox mm-hmm. sanc si wuñu fi ngir douane du fi dugg mm-hmm. sanc si wuñu fi ngir économie bi dafa dox waaye dañ fi sanc si ngir nitug yàlla moo yëkkati woon loxoom mm-hmm. soobu ci yoonu siraatal mustaqim ngir i'laa kalimatillahi al-ulya gi nga xam ne sëñ Muntaxa fu mu toll moom lay woote sëñ bu mag bi loolu képp ko fi indi woon wax ne suñ borom kenn la te ci yoonu yéen soo sam rëddoon ci lañ ko kon daal pour ma ngir ma bañ a guddal <laughs> maa ngi yemale foofu kàddu gi ndax ginnaaw jotaay bi dafa xat euh, ma bàyyi kilifa yi rek ñu àggale